cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxaso woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas bi jóge bitim réew mooy importé te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne de Diass am nañ ci tamit ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fiñ ko jëlee walla ki leen ko wàll ñu seen lim nii la tëddee fukk ak juróom-ñaar ci Dakar Plateau fukk ak ñeent ci Thiès fukk ak ñett mbuur ak wakaam fukk ak ñaar ci kawlax fukk ak benn ci kédugu fukk ci luga juróom-ñeent ci tuuba juróom-ñaar ci tiwaawoon juróom-benn ci Rufisque juróom ci daaru musti liberté 6 mbooro ak pikin ñeent ci HLM Kër Massar Kolda ak Sacré Cœur 3 ñett ci amitié 2 daara Gueule Tapée Khombole Médina Parcelles Assainies Richard Toll Sakal ak tàmba ñaar ci Almadi Bentali Diamniadio Fatick Guédiawaye Grand Mbao HLM Grand Yoff Linguère Mariste Ngor Patte d'Oie Popenguine Saint-Louis ak zone benn ci Bambey Cambérène cité Aliou Sow cité Comico cité Douane cité Horizon cité Keur cité Impôts et Domaines cité SHS cité Sokosim Dagana Diamaguène Dieuppeul Diourbel Diofior Fann Fass Mbao Kaffrine Kounoune Liberté 1 Liberté 3 Malika Malem Odar Matam Médina Yoro Fula Mermoz Ndofane Ñaari Tali Ouest Foire Passy Podor Point E Saréa Sébikotane Sicap Karak Sicap Mbao Sokone Vélingara Yoff Zac Mbao zone de captage ak Ziguinchor ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi malade si ñi nga xam ne dañoo entré woon wala ñu ngi leen toppoon ci biir kër yi wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde juróom fukk ak ñetti malade ñoo nekk réanimation juróom-ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan bësu su démb alxames ñeenti fan ci weeru février bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaabu njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak juróom ñett benn fukk ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak ñett ak juróom-ñaar fukk ak ñett wér nañ ci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 saa bu ngeen nemmee ko yaram bi dafa xaw a sutante wala di jokkoo ak seeni i doc docteur di moytu jaabante yi ak tukki yi dul farata ministère la santé de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam